نعمة ربك témoignage yi fi jot jàll wane na dimension wu Ahmadou Makhtar Mbow wane na dimension wu étatique ndax koo xam ne nekk nga député nekk nga ministre kenn waxatula la luy état te servir nga sa réew waaye témoignage yi wane na dimension scientifique am ak intellectuel am wane na it dimension panafricaine am même su dee waxuñu ko ci témoignage yi ndax bokk na ci membre fondateur yi taxawaloon la fédération des étudiants africains noirs en France te loolu defu ci woon xaj ak seen lépp lu fay woon africain rek boole la woon ko ci kuréel googu wane na it dimension internationale am ndax defe naa sudul ku njëkk ñu njëkk ci ay africain waxuma la sénégalais boo xam ne jiite na kuréel goo xam ne kuréelu àdduna wërgël këpp la bokk na li gën a may fit sénégalais yi ba tey organisation internationale boo jël dafa mel ni sénégalais yi ñoo fa ëpp moom li mu doon précurseur damay wax précurseur précoce bokk na ci li gën a may fit sénégalais yi kon jëmm ju mel noonu bu fi jógee perte bu rëy la ci senegal perte bu rëy la ci Afrique perte bu rëy la ci àdduna waaye ñaara fi des mooy muñ ak ñaanal ko kon ñuy dénkante ñun ñëpp muñ bi ko ñaanal yàlla oyofal suuf ci kawam yàlla boole ko ci borom këru barzaq yu yaatu yi mu jàkkaarloog këram ci aljana yàlla yàggal sarax bi suñu loxo ñun ñëpp ñeex koo fayantu yàlla may ñu ñu teg suñu tànk fi mu ko tegoon moom di daaneel ci wax ni ku mel nii dañ ko war a joxe référence au Sénégal et particulièrement à la jeunesse sénégalaise ndax koo xam ne bi mu demee ba ñépp jàpp ni war naa moom boppam war naa noppalu ndax waxuma la retraite waaye weesu na largement l'âge de la mu continuer ci combat politique dans le sens noble du terme mooy du xëccoo nguur du fal leen ma waaye lépp luy xalaat buy defar Sénégal buy rafetal mbir kenn du ma fa jiitu loolu dafa wone désintéressement don de soi pour la patrie ñu war ko jox exemple xale yépp